ay Ndeye ñu koy màkkaroo di ko pare nan ko dañ koy mariner muy jël xaalis bi di ko jox Ndeye Gueye ay bongoman ay taasukat ay fecckat ban njariñ la am ban njariñ la am ci réew mi Kolda ngi nii ah Kolda ngi nii ña fa nekk sonn nan ñoom ñëpp am diplôme mënuñoo am liggéey ñoom ñëpp am même jaaykatu fonde yi sax am nan diplôme Mame Boye Diao di baleen woon yow école demee day taa école bi nga jàngi nga xam na ni école boobu da nga leen a war a dimbali léegi nag yaa ngi nekk di defar ay piscine ak ay jardin booy yi nekk fa ngi leen di jàngal lan lañuy cagatoog yooyu xaaj bi yëpp dinaa doxaan seen day tey parce que ñii dañuy yàqal Macky Sall liggéeyalul Macky Sall amuñu benn njariñ ci ci ci ci bi yow maam booy jaawo bi bi sax la tane ndax bii bi moom man day dibali ay nit daana dimbali jeunesse bi di nekk si mais poste bi bi na ba na ko joxee ba seenu Kolda yëpp danoo joxle dara defalul den ko xaalis bi ngay jël di jox ay malal nga xam ne bu toogee tee TFM lu ne lay yekk Macky Sall ay yaanaa maar lu ne lay wax Macky ngeen leen di jox ay terrain ak i xaalis ngeen te ko fat jeunesse bi nekk fi activiste yu baax yi deful lu leen dara Pape Malick Ndour man daal xoolal man daal incha allahu rabbi ba ci kanam gaay yi ñi jege Macky sàll yëpp te defuñu saram ndeyam dinañ doxaan seen day ñu liggéey liggéey bu baax parce que yéen moomu leen réew mi baax na.